barke Cheikhuna Ahmadul Khadim salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. monsieur le ministre yow ak euh, délégation bi nga àndal ñoo ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm fii ci seen kër maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu commune bu Touba ci turu monsieur le maire Abdou Ka Euh, fi ngeen ko waroon a fekk noo waroon a ànd li ñuy def lépp moo leen waroon a accueillir dalal leen itam waaye dafa fekk ci minute yu néew ci gannaaw ndigal dab ko loo xam ne amul menn pexe amul ku ko ca mën a wuutu mu ne kon ma ngay dem ca ndigal loola ndax lum sañu la bañ la waaye nan ko fi nekkaaleel ànd ak yéen li ngeen di def kàddu yi nag du bari kàddu yi cant rek la ak ay ngërëm ci seen taxawaay bu rafet ci dëkk bi ndax dëkk bi moom dëkkub ñëpp la ah, item dëkkub Serigne Touba la waaye itam àdduna sépp ko ndax ngi lu ko fi war lu bare bari lam ci man yëpp itam def na ko ci jàpp ci liggéey bi ndax ne luñ def mom lañ koy defal taxawu na liggéey bi bi anda tàmbalee mi ngi ko ak ñun lim ci war a def yëpp itam def na ko waaye am na ci loo xam ne nii loxoom jotiwu fa comme état bi la fi représenté nag ci ndigalul sëriñ bi moom itam la nga xam ne ni mën na ko mu def ko yéen itam lam ca mënut ngeen manal ko ko taxaw taxawaay bu rafet ci ci wetu commission bi jàppale leen bu baax a baax ci seen liggéey euh, gis ngeen ko nii euh, yabal ngeen ay oto euh, petit matériel baa ngi nii ñu indi ci nag ren ji lu fës loo xam ne wax dëgg yàlla euh, taxawaay bi gën naa yokk loolu nag xam nañ ne yéene yi président la naam waaye taxawaayu ministre bii nga xam ne ci kër gi la bokk itam feeñ na ci bu baax a baax loolu nag ñu ngi leen ci sant bu baax leen ci gërëm di rafetlu seen taxawaay di ñaan ñu yàgg koo ànd lool di wax ne daal wax dëgg yàlla jëf ji moom ànd na ak yéene te it méngoo na ak ak dëkk bi nag ndax lu ñuy wax saa ne rek nun euh, Baye Fall sëñ Touba yi dañoo jàpp ne lépp lu war ci dëkk bi ñun la war ku ñu ci fekk dañ lay sant rek gërëm la ah, yéen itam noonu ngeen xamee ne dëkk bi lépp yéen la war wax dëgg yàlla bu nu taxawee ci sunu côté taalibe ngeen taxaw ci seen wetu seen wetu autorité taxaw taxawaay bu gën a rafet du ñu man lu dul sant leen gërëm leen. tey nag ci ndigalul son excellence la président Macky Sall ci leen ñëw fii ci màggal gi ànd ci ngi ci war andal ñep ndax état moy déplacer état bi ñi ko fi nekkal moy administration territoriale ñet yëpp mat nañ adjoint préfet ak adjoint gouverneur Diourbel monsieur taw mi ngi préfet Mbacké Mamadou Lamine Mané mi ngi nii sous préfet Ndam Mansour Diallo mi ngi nii toog loolu man ma ci dolli ko état tok waaye ministère bi mun naa leen kenn gisu ndax ministre moom dong doxalu ministère lay doxal ministère mooy direction bi ak ña liggéey direction ya fa nekk yëpp ak ña fay liggéey ñëpp ñëw nañu te ñëw gi dañ cee sawar loolu fu ma toll maa ngi leen ci sant ndax man men man dong mënu ma dara loo gis ñu def ko fa dañu maa nangul ànd ak directeur yi su ma rak daaj El Hadj Ablaye Gueye mi ngi nii toog directeur Bokar njaay mi ngi nii toog colonel kii wax ko directeur Amadou Niagne Cissé direction yëpp a fi comme baa c'était nii seete sama rak nga xamni ne attaché commune Lamine Diagne ngi ni tok ak direction bi dal ñepp a ngi fi wax dëgg yalla ñepp ñew nañu kenn manki wul ndax bari mi ngi fi Abdoulaye Guèye Cheikh Sounkarou Ndiaye fat maa ko don faté sax Bokar Ndiaye li motax bindu bax docteur directeur Lamine Diagne professeur Henri Lo ak euh, chef de service régional bu Diourbel mi ngi ni tok mom itam donc vraiment ñi wara ñew ñep ñew nañu Seydou mbalo ñi yore walu wax ji ak wane ji ak sécurité bi ak direction euh pro place kok na ci delsi donc ñi ñoo and ak man bi ñewé Touba nak fekk nañ fi tam ñoo xam si mënuñu leen bañ wax ndax ci délégation bi lañ bok koku maire ci la Abdoulaye Ka yow bo ñew li ñep xam nañ am nga yéene te sa yéene yang koy wane ci Touba mat na sëkk te señ bi la waxal ni tay bo wax ni mënu wax lu ko kon yow sa teewaay mat na sëkk ci ñi ma fiy jàppale nga xam ne li may liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi ci ñoom laa ko jaarale ñu ngi nii toog mën naa ci lim ngañ jub Baye Moussa Dieng soxna Mbay ak ñi ñu ànd gis naa leen maa leen sant seenu ñëw ñoom itam kenn forcé wu leen ñëw dañoo bëgg ñëw te li may liggéeyal ci dëkk bi ñëpp gis ko ci ñoom lay jaare te maa ngi leen sant ndax lu jaar ci ñoom yegg ci nit ñi te loolu donc moo na ci ñor ci àndandoo bi tey dafa am lu bees loo xam si il faut mu wax ko bala ñoo commencé mooy Diagne directeur Proplast bu ma nangoo moo ànd ak moom jëmmam taxut li muy def di ko wone moo tax ndax ñëpp xam nañ plastique li muy wàññi ci àddina bi ak li muy yàq ci Sénégal ak ni mu amee yéen jëlee ko fi moom li muy def daa bokk ci loolu fi war a mën a jëlee jóge plastique bi naa ci dellu si looloo tax ma nangu ma ànd ak moom bien que entreprise privée la yore waaw loolu tam yaakaar naa lu ñu mën a wax la li ma njëkk a wax nag mooy sant suñu borom moom mi ni may fekkee. tal man ak yene ba contribuer ci magal gi bo gisé ma sant ko nek fi dafa am ñu fi nekkal daw te nekkatuñ fi te cioborom la ko ki ci gëna a mo mooy sëñ Sidi ba mako fekke gën galna ni ni la man dam ni université bu doon fay 10 millions par mois demuma ngeen ma ci Paris gi nga tok moo gën man la indi milliard da melni li xam li am tay lolou wax sax wax jojé lay deug ya ko wax waaw donc ñoo ngi fàttali ñoo ngi ñoo ñoo ngi sant suñu borom bu wér a wér di sant nag sëriñ Tuubaa te sëriñ Tuubaa fi jóge déedéet ki tey mooy sëriñ Muntaxa doon gi mu ko doon mat na sëkk tubaab dañ légalité légalité mooy war nga koo doon waaye am na lu ko gën a wóor mooy man koo doon mu boole ñaar légalité ak légalité bi danoo dem a dem ba ñuy sëti sëriñ Tuubaa yi tey moo fi mag loolu yomb na waaye la ma def mat ko loolu am solo te li ci gën mooy ku fi mas nekk sëñ Touba féete leen fan la war a féete nangu la na war a nangul te looloo tax mu nekk sëñ Touba tey te loolu man mën naa cee wax ndax juróom-ñaari di ma gis mu ñëw suñu siit waxtaan musuma koo gis ne baa sa xol te boobu ak taalibe lay jàngale yoonu murit loo ci bëgg lu ne boo ko tuddu taalibe doo ko am te loolu lay jàngale donc ko ci sant bu wér a te di ko nuyu di ko ziar yow mi ko fi toogal mat nga ko sëkk ñoo ngi lay sant bu wér ndax lii am tey yow ban amee yéene ji ba léegi ban la ko waxee lu ci nekk yaa ngi koy def na mu gënee ba ni mu amee gi nii tey loolu aussi ñoo ngi la ci sant di la ci gërëm sant nag kilifa yi murit yëpp yi xam si tey ñu ngi ci ginnaaw sëñ bi ku nekk taxawaay ba nga tax a taxaw pour yoonu murit mel na war a mel ndax yoonu murit mel na war a mel mooy njëriñu Sénégal mooy ngeen adduna bi yëpp loolu kenn jiituwu ci sëñ bi loolu ci la mas nekk moo tax ma ne bii mooy màggalam bu njëkk

ñëpp ñu xam si ñëw nañ teewee événement bi di sant di gërëm bari cant Jibi jaañ moom parent ku baax moom daa teel am teranga teer a jariñe man 1982 la amee bac Thiès booba ñi am télé télévision en couleur Thiès dañ ko doon wàññi këram la jën télévision ak couleur mos écran yu mag la ñun ñëpp fa lañ doon seetaan te amu ci kenn kuñ fa ma sax lu wër te wax loolu boo teewee fi tey waxuma ko sama ngor rey des te sa teewaay bii ak ni nga taxawee ci yoonu murit bokk na ci li la may loolu ndax loo ma sam teraanga joo ma sam jox ko waa Touba waaw sëñ siis nag am na lu ma jàngale ci yoonu murit nee na murit ñett la ñaq ñukk ñukki ci lool ci ci loolu rek nga ne waaw donc ñoo ngi lay sant di la jox sa place tey nag ñaar leen fi ñëwee république ndax yàlla ci ci coobaram ak bëgg-bëgg yéeneem sëñ Macky sàll moo dem ba def mu ministre ministre de la république la république mooy nguur goo xam nit ñaa ko fa teg waaye mu nekk fa nit ñi nit ko fa teg mu nekk fa nit ñi

beneen ñaar bi mooy doon taalib Sëñ Tuubaa bu wér xam ko gëm ko nangu ko ñu jàngal ma ko loolu ma xam ko te ñi ma ko jàngal ñetti nit la sëñ Sidi Muxtaar lu ma xam Sëñ Tuubaa moo ma ko wax lu ma gis ci taalibe sëñ Muntaxa laa ko gis leneen li ma dégg ci discours sëñ Bass te ñett yooyu li ñu ci jàng ci màggal gi mooy li ñuy màggal fii mooy sëñ Tuubaa tey li mu doon màggal mooy ci bisu magal gi yakarna liñ ko pindel li nga doon ñaan suñu borom lepp amna ko mu ne lim ci war a boromam mënulu ko bopam waye mi ngi sant kep ku di murid di ab serign nga sant li ko ko te nang ko koy santalee le moy nga ak sa njabotu ñëpp lo man ci leen ni bigal nga def dekk beet ñu fexé ba mu set ndax kuy téru gan dang koy téru te na mu set bëgg sétal dekk bëgg mu rafet mo tax ñu indi lii donc lolu mooy ñaar yi fi ñëwee li nu indi nag wolof nee na njël ku ko yokkul yaa ko wàññi. dëgg la de dépasse. donc ñun duñ mukk fu mu toll na ko jéem a yokk. yokk na ci lim yokku na ci li ci nekk. ndax bu dee brouette yi li ko manque ñaar téeméer bëriwul bu dee rajo yi noonu bu dee lii ngeen ay poubelle def naa war nañ yegg ñett téeméer te poubelle yi sax damaa gis laa yi di gars ko def ndaa léegi. mën na ko mën na ko dañ koy def ndaa ndax ndaa yi donc loolu moom le ministère bi indi di ko xeeb nag lool waaye màggal gi ñëpp xam nañ ni tey yoonu murit ni muy bàkkoo mooy xew xewal yu doy yoonu murit ni muy bàkkoo tey xewal yu ci la ndax ba muy jóg ba muy soog a jóg xewal yi tuum nañ ko ne bu demee boola ngaan nañ ko war a bàkkoo waaye xewal des koy togg te mat tey togg mat tay deug deug dëgg mi indi nañ ci lu doy matum xar sax ngeen indi mattum xar bala màggal jam 1 mois lañ indi mat bu ca bis baa lu mat ñaar fukki camion citerne ndox dinañ ñëw lepp nak dañu ko tek ci xam li ñu war ci Sëñ Tuubaa ñu ko koy liggéey donc li ñu indi lepp liggéeyal Serigne Touba la te Touba lo fi indi lu ne boo ñëwee fekk fi lu ko ëpp te boo yeexee lu ko fekk la fa ah, donc duñu bàkk mukk ci li fii te lu ñu fi indi rek xeeb nañ leneen li ci des il faut ma wax proplast du wax sax li mu indi mais li muy wone ma bëgg waa tubaa jàpp ci jàppale ko wan la ko ni xam ni li muy def dana faj lu bare bari ci réew li njëkk a faj mooy jógal jële fi li naan périd plastique ndax lii mu indi tey ma limal leen ko indi na téeméeri poubelle ak juróom fukk dolli ko ci li ñu yoroon ñetti téeméeri paani raxas juróomi téeméeri paani raxas ñetti téeméeri satala fukki chaise juróom def naa ñii ci lañ toog ak lu ñuy raxasoo ak ay corbeille yi ñuy sànni bale lii yëpp na leen leer ni ci plastique bi muy for di ko jënd ci yéen ci la ko defar jàmbar la de loolu nag bu ñëwee tubaab fii dañoo xam ne tubaab soxla buñ fi diis mu faju bu ngeen ci waxe mu am bu ngeen tapé mu am té lolu bu ndar ñu Sénégal gépp na te waa Touba ci gën a ndax fal place bi fi la gëna wulé ñaan lolu aussi bu ñu nekké fi ñëpp dima déglu lu mo wara wax la donc ñoo ngi sant ñëpp diko tambalé fan ko ron tambalé sëñ Cheikh yow ya fi sëñ Touba tay ñoo ngi sant wër di la ziar di sant tam ñu fi nekkal sëñ Touba te mat ko sëkk sëñ bi wax légui ci la sëñ Abdoulaye Diop ci la sëñ Khadim sam ci la soxna maam say duma ko fàtte mom kenn ku kenn kenn ku ci bokk ndax maam say mi ñu naa mooy mooy mooy waajuru jigéen Cheikh Say maam say jaxate mi jur sëñ sooy def naa moo tudd ndey maam say jaxate bokk bay Cheikh maam kon yow sant di gërëm wax hmm? monsieur le maire moom laa tàmbalee maa ngi sant itam ndax boo ñëwee Touba di tàmbali sant ba ngay sant waa sëñ Touba booy jeexal sant sëñ Touba ndax Touba sëñ Touba fi nekk moo fi sax te li wolof naan ku jur doom jóge wu fi. Mm-hmm. looloo daal dëgg la moo tax may wax fii bu ngeen ma gaawul arrêté dinaa xabaabal waxoon naa la ci diwéer yoo xam ne keroog moo la ko waxee da ngaa ree ba sonn. dëgg la dëgg la leen wax kat bu ne war naa léeg-léeg mu yërëm nopp yi koy dëgg la ndax déglu si amit. bu la ma ñu sunu tam. waaw ah. ah, mu yërëm nopp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lu ma def rek xeeb naa ko sama yéene moom romb na lépp te lu ma def fii ci rëf bi léeg-léeg waaye tam doon tàllu mut sëñ maa ngi sant ñëpp yéen ñëpp barke sëñ Tuubaa